Salut les amis des Sport TV et de Baba Show. Merci encore gars de la confiance renouvelée. Merci de way du like, merci de way des abonnés. Merci également du bail les commentaires. Un plaisir renouvelé chaque fois. Du partager et gain d'informations. Inbox est fait pour les Montenegro 14 régions du Sénégal. Roukh di Gorgo Khadi, ñu ngi leen jaajëfal. ñi nekk également ci l'hôpital et ci kër yi tëdd feebar yàlla na suñu borom fëgg seen bopp ñëw rek jàmm. ñi nekk ci kaso yi ngeen xam aussi erreur judiciaire gi ñu deful moo leen fa yóbbu. Suñu borom génne leen fa delluwaat leen seen i njaboot. Ñu dëddu àdduna. Suñu borom xale leen àjjana fi daw si te yéexee ñu. On avance ensemble dans la magie de Baba Show et de TV l'actualité en continu gars actuel nous fas yéene waxtaanee Diaw du côté de Marseille qui euh, du Boulaye Dia ñetti club yu Angleterre daal di koy am insister wax également ci nga xam qui donc Bartra mi daal di tagg ki nga xam donc Nobel Mendy Les ñu fas yéene ko wasaare ànd ci ak yéen lata boobu nag ay maillot extérieur bu Al Nassr maillot bu noir bini. nii Stadio la ñoom Mané ñoom Cristiano Ronaldo fas yéene sol saison bii ñu jëm Inshallah. rabi donc Al Nasr qui veut conquérir le titre de champion Arabie Saoudite ndax ñom Koulibaly Al Hilal ñoko ko yor Neves est arrivé du côté du Paris Saint-Germain la pépite portugaise def na nga xam donc signature def visite médicale et tout Et le temps entraînement mi momit it laaj ko par rapport au Paris Saint-Germain kan moy idolam xam ngeen ki mu tuddu moy Marco Verratti parce que ñu bëri japp nañ mom style de jeu bu Marco Verratti la l'ancien joueur du Paris Saint-Germain international de la Squadra azura italienne est euh, de Marco donc euh, Verratti joueur bo xamne bu won woon tox bi moom it ah mu ngoog euh, gënoon am ki ken luñ dégg nañ ko fu sori Leny Yoro gars nak mom dina toog lu ñetti weer du ko daal jouer par rapport mi def blessure bi donc opéré nañ ko tay jii ni opération bi jaar na yoon ah, donc fini ne phase de rééducation que la dara wara nek ñi nak di Manchester City ñoy insister pour Dani Olmo les citizens de Pep Guardiola yi nga xam ne ñoom ils sont en concurrence avec le FC Barcelone pour recruter bien évidemment le milieu de terrain champion d'Europe avec euh, la Roja espagnole pendant ce temps dans le monde mii qui a donc Dani Olmo côté de RB Leipzig avec représentant à agent pour voir ndax Barça de récupérer moom nag Amna accord de principe avec Barça mais il y bi a problème pour le club Blaugrana deux équipes africaines éliminées en demi-finale de euh, des Jeux Olympiques de football Nous ñaar nag pour war pour troisième place les Lions d'Atlas du Maroc ak également les Pharaons d'Égypte Nous a daje bi la France euh, de Thierry Henry moo éliminé les Pharaons d'Égypte 3 buts à 1 Les leen d'Atlas euh, donc France bi organisé ces Jeux Olympiques dem nañ finale hein, donc war fa Espagne bien nga tamit tombeur euh, de cette équipe du Maroc 2 buts à 1. et pourtant Maroc mo à a occasion yu mais il a fallu bien évidemment que Fermin Lopez le joueur du FC Barcelone d'aller égalisé égaliser avant que Sanchez di daal sur une autre passe toujours de Fermin Lopez nga xamné tax na bi di Mundo Deportivo a tort, comme pour dire Terminator parce que il a terminé le jeu permettant à l'Espagne Espagne de final donc cette année c'est l'année de la Roja espagnole mais aussi il faudra retenir le nom de Sofiane Rahimi qui devient aujourd'hui le deuxième joueur africain à atteindre la barre des 6 buts donc compétition les Jeux olympiques donc lui il a marqué 5 euh, penalties la dali qui euh, hein, euh, Sofiane Rahimi pendant ce hein, temps ndaw xam ko du côté de Lyon waaye nag dafay jóge war a dem nag gars yi si euh, beneen championnat la war a dem ah. donc moom mi nga xam ne dafa demoon euh, daw lañ ko parce que Dakar sacré Lyon Je am partenariat mais dafay daal di jóge loolu daal lañ jotagum comme Cristiano Ronaldo qui rencontre euh, Erling bro Haaland mi dem ca foofu noonu nga xam ne donc fii waa ñii di waa Al normal day at office ah un jour normal au bureau l'Odal qui a donc à pour rendre hommage à Cristiano Ronaldo mais également daat qui dit, ça y Sadio euh, Mané ñu avons fait fay un peu hein, sur le nga donc c'est une toute compétition et tout hein, donc Wartan bu calme ak papa également à mi côté pendant ce temps. Kinak dit di euh, Mori Diaw ni ngi tout du côté de Marseille mais également il y a Nantes mais aussi Burnley beneen club anglais mi ngi Topo, le gardien sénégalais bi nga même vous faites qu'il même bu Saint-Germain ko formé yàggut Yagna naa pour Marseille lii mi ngi en 2012 mu Mandé, su euh, mois moi je joue au PSG mais je suis pour Marseille à PSG Marseille Marseille plutôt je dirais à l'OM au MPG je dirais au Vélodrome j'irai au Vélodrome loolu daal la daal di wax on a fini la province Moko Dadi daal avec wax ak la minute OM ne euh, Marseille n'est ngi inquiète mi intéressé au baax ci moom kii nag également di Boulaye Boulaye Dia club yu bëri ñu ngi koy notamment également Bologne Lazio du côté de l'Italie mais du côté de l'Angleterre Everton mooy gën insisté insister ce su pour recruter l'attaquant sénégalais qui voudrait avoir du temps de jeu conséquent les amis li est information yi ñu bëggoon jox lu des nag mu jëm ci li nga xam donc kii di Evra li wax ci Lionel Messi ak yeneen actualité yi également Bartra mi daal di tagg Noël Mendy lépp di nga ko fekk léegi ci Baba Show bu leen fàtte. abonné suñu ñaari chaîne YouTube yi Baba Show ak eSport TV TikTok bi di eSport TV 1 Instagram eSport Inter su baaxee ci la bonne suñu la gars yi jàngeen jëf